اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو jazakumullah xeyran cheikhana laata question ramadan yi dafa am benn laaj bu ñu fi yóbbante mooy kii dafay wax ndax dina dagan ci jullit bi mu sukkandiku ci li ko gënal ak li ko neex dal di yéexee waxtu gee ba mu gën a sori waxtu wi ñu ko tàmman di julli
alhamdulilah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu julli gee léeg-léeg daana ko yeexe daana ko yeexe kon loola ajuwul ci ñuy wax ne li ko gënal la waaye loolu njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg daana yeexe waxtu gee ba ñi koy nekk sax dem bay nelaw ci jàkka ji mu door a ñëw julli àgg ci di wax ne su dul woon ragal sax ngeen sonn danañ bàyyi ba xaaji guddi weesu ñu door a julli kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay njàngale mooy léeg-léeg mu yeexe waxtu julli gee waaye nag du ko saxoo maanaam saxoowu ko day wane ne daal manees na ko julli ci waxtoom bu jëkk waaye manees naa bàyyi it ba mu sori lool ñi door koo julli te du wàññi dara naam
cheikh na marhaba
nam jazakumullah xeyran cheikh na damay laaj sànq ci wax ji neewoon nga ni ki nga xamante nii dafa joteeg soxnaam mu teg ko ci sikki sàkk ba xam fajar gi jot na wala jotut ni kookaa loolu day day mel ni ku fàtte lekk waaye su fekkente ni ci bëccëg bi la maanaam muy sikki sàkk ni ba xam jant bi soo na wala soowut mu daal di si joteeg soxnaam kooku ba xam moom dañ koy dugal si buntu boobu wala
bu fekkee ne ci sikki sàkk la ko teg kooku moom day fay sikki sàkka munta dindi yaqiin waaye su fekkee dafa dem ba mu yàgg mu am yaqiin moom ci lim jàpp ne jant bi sona mu lekk wala mu naan wala mu ànd ak soxnaam ci kaw yaqiinam la ko tegoon moom waaye mu mu leer naññi ne jant bi nga xam ne dafa suuxoon kat moom génnaat na ne tal fenk ndekete soogul woon su boobaa kooku la ñuy wax kooku moo doon ki nga xam ne dafa juum waaye suy sikki sàkk nag kooku moom sikki sàkk kenn du ci teg benn xukkum shar'i muy doon àtte boo xam ne bu wér la naam ñaareel ba koy mujjal mooy sànq ci aaya gi wa man yartadid minkum an diinihi foofaa ba xam tamit ki nga xamante ne dafa jàpp woon gannaaw gi daal di tubbi ba xam bu dellu siwaatee ci lislaam jàpp googu dafay nekk ba léegi wala day yàq ba faw moom bu fekkee dara yàqu ko la fi nekkoon lépp nga fa lépp loo xam ne jëfoon na ko ci atte shariati bi mu génnee diine loola yàquwut su ko yàlla baaxee mu dellu siwaat ci diine ji loola dafay nekkaat demut maaleykum salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa cheikh ginnaaw bi la ñaanalee yàlla gudd fan bismillah
dañu amoon benn laaj bu jëm si wàllu julli dafa am lu ñu dégg lu ñuy wax muhaada ñu ne nit ki mën na julli si ginnaaw imaam fekk na royul imaam bi ñu doon laaj loolu ñu bëggoon si ay leeral dal
ala kulli xaal muhaada boobu boroom xam-xam yi di faral di wax gisaluñ ko dalil nag bu koy firndeel moom ci xadis waaye ñoom dañuy wax ne su fekkoon ne nit ki dafay julli ci gannaaw imaam joo xam ne doyu ko maanaam jàpp na ne kii daal du imaam joo xam ne ku julli ci gannaawam sëg julli dana baax su ko defee mu ànd ca julli ga di def la muy def waaye fekk julli wut la mu yéene mooy suñ noppee moom mu dem julli ji loolu la ñu tudde muhaada ci anam gu mel noonu donte loolu nag gisaluma ko benn dalil boo xam ne bu jaadu la nit ki su fekkee ne da nga jàpp ne ku julli ci gannaawam ak sa julli du baax kenn forcé wu la nga julli ci gannaawam bàyyi ku nga dem julli ji sa julli bopp loolu moo gën a yanu maanaa di def ay yëngatu nekk ci gannaawam te fekk julli woo
asalaamaaleykum wa rahmatulah.
salaam docteur li ñu question bi nga jëkk a tontu defe naa ni ñu ko tege ni ñu ko laajee woon waxee ñu ko noonu dañu ni ki nga xam ne dafay gën a te je gaaw a julli gee balaa waxtu bi dugg.
day bokkul ak ki julli ko ta- day julli balaa waxtu wee dugg
boobu la. ndax weeru koor mën na maye loolu. ci fekk Ju- nit ki daf ko aajo ci sago boppam.
julli te waxtu wa duggul ba mëne su ko defal kenn julli inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta yàlla nee na julli dafa am waxtu wuñ ko wutal woo xam ne su jotul ku julli moom amoo julli faw waxtu wi jot bismillah sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah joxal kii mu wax Ah, laaj boo am solo la laaj bi nga xamee ne nit ki ànd na ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor mu ne ndax li war ku góor ki mooy war ku jigéen ki mi ngi aju ci ndax ku jigéen ki daf cee d'accord comme ni ko ku góor ki nim ci d'accord ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ñi ànd kenn ku ci nekk xam ne dafa woor ñi bokk tey ko bokk bokk sëy su boobaa kenn ku ne li war kii moo war ka ca des waaye nag li gën a not li ñuy jàpp mooy ku góor ki ci boppam mooy ñëw ak aw melokaanam jekki-jekki def li muy def loola moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi waajoo ji ñëwee di wax laaju ko sax lu jëm ci soxna si laaju ko ne ko demal ñu seet ba xam moom moomee ndax moo ko tey wala teyu ko wala yaa ko ca forcé wala forcé woo ko ca wala lu mel noonu moo tax li gën a bari responsabilité bi ku góor ki moo koy faral di yanu waaye nag su fekkoon ne dañ koo waxtaanee ba bokk tey ko def seen mbir su boobaa kenn ku nekk li war ku góor ki mooy war ku jigéen ki ala kulli xaal sowu jant bi moom tënkuwul ci waxi imaam tënkuwul ci noddukat bi jant bi moom su soo rek li wér mooy sona su soo nag su boobaa moom aftara saaim comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ida aqbala leylu min ha huna wa huna faqad aftara saaim du jaadu nag ay juuyoo ak i xilaafaat di am ci lu mel noonu ak ay xuloo ci juróomi minute ndax dañ koy dog ak dañ koy ñàkk a dog ki nga xam ne loola doy na ko mu toog xaar imaam ala kulli xaal kooram baax na xanaa rek dafa am sunna bu ko faat muy gaaw a dog sunna boobu da ko faat su nare indi ay xuloo ak i noonoo ak i ŋaayoo su boobaa du ko jar benn moom mu dog te ne cell bañ caa waxante bi nga xamee ne dem na ba am lu wóor ne ko jant bi sono mu dog bañ caa waxante amul werante amul dara ki nga xam ne nangu naa jëfe la imaam ba wax itam mu bàyyi ko mu def noonu dara newu ci
asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam Cheikh Mouhamed ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla barkeel xam-xam bi waaw dafa am benn ñaan boo xam ne ñaan bu siiw la may gis ñu koy ñaan laata ñuy dog mooy allahumma laka suntu wa bika amantu ba ñaan gi jeex may laaj ba xam wér na
allahuma laka sumtu wa bika amantu ak ñaan la goo xam ne ñaan gu baax la waaye nag ab xadis xadis bi wérut xadis bi wérut allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ak ñaan gu baax la goo xam ne su jullit bi doon def su jekkee ba mu yàgg mu wax ko loola dara nekku ci waaye ba mu fas nag ne yonent bi moo ko jàngale ndax xam nga buntum ñaan lu yaatu la néewuñu la ñaan yi ngay ñaan yépp ne jóge ci yonent bi gépp ñaan goo xam ne gis nga ko gis ne wax ja baax na boo ko waxee wàññiwul dara bu la neexee boo jëfandikoo ñaanuk sunna gi ba noppi ba dog sa dog boo jekkee ba mu noppi ci yooyu yëpp nga ne allahumma bi nga amantu ala risqi aftartu ba ñaan googu jeex dara nekku ci waaye bul fas mukk nag ne njàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam la
asalaamaaleykum wa rahmatullah
docteur yàlla na yàlla sàmm la te yàgg la suñu kanam mën a root si xam-xam bi chaque jour dama amoon na ñaari laaj ba si njëkk mooy ndax dina dagan si ki nga xam ne day fay ay boru kooram mu tànn ko si yowmul juma ak yowmul sabt ak yowmul axat beneen bi tamit kii fay koor lu tax mu di ko tànn loolu laay laaj moo ma jaaxal
ah loolu de bu la jaaxalee noonu itam dana nu jaaxal ndax moom ala kulli xaal su fekkee ne su fekkee ne dafa yore bori koor war koo fay mu tànn ay fan yoo xam ne lu génn fan yooyu day nekk ci liggéey bu metti boo xam ne bu ci wooree amaana kooram du mën a àgg mu tànn fan yi nga xam ne mooy fani noppalu yi ci semaine bi mu jël ko di ko woor su boobaa loola dara nekku ci su boobaa loola dara nekku ci moo gën muy woor bis boo xam ne day tàmbali kooram du mën a àgg mu di ko dog su dee loolu la ci jublu moo tax ma laaj la lan la jublu ci loolu
jazakallahu xeyran beneen laaj bi mooy ndax si sawmu daawud siyaamu daawud bi nga tudd léegi si biir waxtaan ki nga xam ni daf koy woor léegi naka lay mën a amee forsa ba mën a wooraale yeneen bis yi nga xam ni sallallahu alayhi wasallam daf koy jàngale pour ñu woor ko lu mel ni yomil isnayn wala ayaamul biid wala yi mel noonu daal
xam nga mbir mi mbirum tànn la yooyu yëpp benn bu ci ne dafa am ngëneel yooyu yëpp fan yi ñuy woor yëpp mu nekk fari koor yi ngàtt nga dafa am ngëneel mu ne la nag bi ci gën mooy bii boo xasee tànn bi ci gën moom yi ci des yëpp jamono yi nga koy woor altine dana ci dugg alxames dana ci dugg yow mu arafa dana ci dugg leneen dana ci dugg leneen dana ci dugg su ko defee bu boobaa yow tànn nga la gën a baax yeneen ya ca des wiiseetoo ko li nga jël mooy koor gi yonent bi wax ne gii moo gën ci koor yi soo ko defee moom jaratul ngay am soxla ci yi nga xam ne àgguñu ci moom ci ngëneel ndax yépp moo leen gën ci ngëneel
salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaam wa rahmatullah cheikh bi yàlla na yàlla fay leen guddal fan wi te barkeel xam-xam bi amin ya rab man dama amoon ñaari laaj bi ci njëkk mooy xadiisu Usaama ibn Zeyd fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan wooree lu ëpp ci Shaabaan ñu laaj ko mu ne mu bokk ci yim wax mu ne ci la ñuy yëkkati jëfi jaam ñi di ko gaaral suñu borom mu waxaat ko itam ci alxames ak altina dama doon laaj ñaar yooyu ni ñu koy boolee waaw yëkkati jëf yi amul amul contradiction am na yëkkati goo xam ne yëkkatik at la am yëkkati goo xam ne yëkkatik semaine la wala ay fan la ci biir semaine bi leen lu ci nekk ginnaaw xabaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xabaaru ku ab xabaaram dul fanaan fanaan àll moom moom xabaar bu wér rek lay mën a doon te yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu mu wax rek lu wér la ndax wax yu la wu jógee ci sunu borom tabaraka wa taala wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa
ñaareelu laaj bi mooy comme da nga wax ci bés yi nga xam ne dañoo tere ku ko woor da cee bokk ayaamu tashriq te dafa mel ni bés yi ma dégg nga lim day tombeek ayaamul biit ci weer woow noonu léegi ndax ki tàmmoon di woor ayaamul biit bu yeggee ci weer woowu mën na ko weccee yeneen bés
ala kulli xaal ayaamu tashriq mën naa dugg ci biir ayaamul biit mën na ko doon itam waaye mën naa ci li lenn borom xam-xam mooy fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñeent am na ñooñ sax dañ ne fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett ala kulli xaal noo ko mën a limee danañ duggante ñoom ñaar su fekkee ne dafa tere dafa ñëw ci lu mel noonu su boobaa bàyyi fa ayaamul biit nga woor yeneen fan yi ci des wooral altine ak alxames wooral leneen ngir nga bañ a tàbbi ci biir tere boobu yi donte am na ci fuqaha yi ñoo xam ne dañoo wax ne tere googu dafa nekk xaas ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir ak aj te fekk ñu am hadiyu waaye loolu it nag amul dalil boo xam ne bu dëgër la moo tax tere gi matale moom moo gën a yaatu moo gën a dëgër ko kii dafa ne ndax nit ki mën naa xëy fekk dafa xëyaale janaaba waaye bi waxtu xëdd jotee mu xëdd fekk sangoogul ba fajar dugg mu door a sangu kay loolu yàqul dara ci koor ginnaaw sangu war na ko waxtu jàpp jot na jàpp na bi fajar jotee mu dem sangu ji dem julli ji kooka dara sikkut ci kooram amma beneen laaj bi mu laaj nag daa mel ne dégluwul liñ doon jàng sànq ndax day laaj ki doon fo ci boppam ba faf génne am ndoxam génne man yoom kooku wax nañ la ci yàq koor ci la bokk day laaj deret ji nga xam ne day génne ci jigéen lu jiitu muy am doom euh, su fekkee dafa matu euh, loolu itam ci li yàq koor ci la bokk ndax euh, la chaque ne diggante xukmu damal xayd lañ ko jox ak damal nifaas mënut mënta génn ñaar yooyu ki tàmbali di woor siyaamu daawud ndax su amee ngànt mën na koo dagg ok ramadan sax boo amee ngànt mën nga koo dagg te mu farata la kon siyaamu daawud taxut ñuy wax ki war a fay ramadaan ndax day jiital woor juróom benn fan yi ci shawaal ba noppi door a fay weer wi wala day jiital fay gi su fekkee ne bor yi mu yor mën na koo fay ci biir weeru shawaal wi bi mu noppee mu woor juróom benn fan yi loola moo gën ñaar yépp mu def ko jiital farata ji balaa weer wee jeex mu woor juróom benn fan yi loolu mooy li gën a baax su fekkee ne nag woor juróom benn fan yi da koo nar a faat ndax xëy na lim yore ci koor gi dafa bari amaana weer wi yépp da koo leb kon su boobaa na woor juróom benn fan yi fukki weer ak benn ngi ci kanamam yoo xam ne mën na cee fay bori kooram su amee keneen
bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah
kii itam balaa boobu dafa laaj ki nga xam ne moom it dafa doon xëy na sëyut ak soxnaam waaye dafa doon jonjoog moom ay fo ak yu mel noonu ba ndox génne ci moom loolu lépp ci biir istimna la ci lay dugg mooy fexe ba génne sam ndox te fekk yow yaay sabab sa su boobaa da yàq koor gi naam salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah yal na yàlla sàmm leen te wéral cër yi yaa rab dama doon laaj ci comme laaj bi ñu mujj a wax léegi muy al istimna léegi bu fekkee ne góor gi li mu génnee maanaam du man yi waaye mas yu la mais dafa foo ba ba mu génn mais agul ci man yi waaye mas yu la ndax loolu day yàq su fekkee ne lu ànd ak bànneex la lu mu mën a doon day yàq koor gi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy wax ci xadis ba mu ne bi mu waxee ne koor moom rek moo yeyoo di ko fayal boppam daf ne yadau taamahu wa sharaabahu wa shahwatahu maanaam bàyyi na lekkam bàyyi naanam bàyyi bànneexam ngir man min aj lii kon su fekkee am na lu mu def ba am ndox mu génn ci moom moo xam ne ndoxum bànneex la boroom téere bi daa wax man nii waaye même su dee mas yi itam kooku dafa yàq koor bi ndox mu génn ci moom mu nekk te fekk bànneex a ko génne nga xam ne kooram yàqu na
beneen bi mooy comme réew mi mbirum weer bi ni muy jaxasoo des fois bu ñu nee tey lañu war a séentu séentu bu njëkk am ñoo xamante ni ñoom séentooguñ ki jàpp ne ñi ñi war a séentu séentu bu njëkk bi muy tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent moom mu toog di xaar weer wi xibaar yi nag daanaka li ni mu koy dikkee du gaaw lool.
ni mu koy dikkee
maanaam koo xamante ne nii tey ci misaal dafa tënk ci ñi nga xamante ne nii fu weer wi feeñ ci àdduna bi dañuy wor te mu gis ne réew yu bari ci àdduna bi tey la seen ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mais réew mi mu nekk ñi ci bari. gisuñ ne tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett lañ nekk kon moom mu fas yéene fu weeri feeñ rek mu wor mu toog di déglu xibaar ba guddi amul xibaar far yàlla dogal mu nelaw waaye fas yéene woon ne bu weeri feeñee mu wor far yàlla dogal mu nelaw ba yeewu xëy suba ba xëdd paase ba fajar gi dugg mu dégg ñu ne weeri feeñ na kooku fekk lekkagul defagul dara fekk lekkagul deful dara bu ko neexee mën naa continuer kooram day fay woon ginnaaw yéene woon na ne bu weer wi feeñee day woor te weer wi feeñ na te yëg na ko bi mu daataan lekk mën naa continuer kooram du du ko yàq dara ndax yéene jàng fa
salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaam jazallahu cheikh kii ab laaj la bu ñu yóbbante yóbbante woon nañu ko sax ci dara su bari ñu bindoon ko waaye jotutoon a jàll mu déglu woon kaset ya nag déggul ko ca mu gën a sàkkuwaat ñu jàllaleel ko ko kii mbokk bu jigéen la boo xam ne mu ngi nekk ak boroom këram nekk nañu ay at yàlla dogal na njaboot nañu itam waaye am na lu xamante ne nii mu ngi ko nemmeeku ci boroom kër gi am nañu ay jafe-jafe yu takku jafe-jafe yooyu yëpp nag moom mu ngi koy dund waaye dérangé wu ko ba ko dérangé daal benn la moo di ne boroom kër gi gaa de imaam la sax waaye dafay bàyyi julli loolu nag nekk lu màgg ci moom ba def na côté bu nekk ngir loolu mën a yiwén jàppandiwut loolu yóbbee ko itam mu daal di sàkku talaax waaye waaj a bañ mu jéem itam xuloo waaye ba tey itam foofu amul fa ba tey bunt muy laaj nag léegi nan lay dundee nan lay def
ala kulli xaal xaw naa tumuraanke ndax imaam ba noppi bàyyi julli moom xawuta mën a ànd ndax bu fekkee imaam la moom mi ngi jiite te kuy jiite yaa ngi julli dama xamul ndax ay naafila la bàyyi dafa sàggan ci wàllu diineem wala yu mel noonu ala kulli xaal nañ fi bàyyi imaam ji bàyyi na julli ak bàyyiwul julli waaye nit ki nga xam ne day sëy ak koo xam ne daa bàyyi julli sharia ci boppam togg na ko moom soxna soos yi lu mu mën ci xeeti laa biir mu def ko borom këram boobu ngir mu julli su fekkee dem na ba naagu ci loolu amatul pexe sañ na koo ñaan baat benn mu may ko ko wala mu ñàkk ko ko may su lankee bañ ko ko may nag sañ naa dellu ci ñay àtte su ma nee ñay àtte mooy xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ñu seet ñi nga xam ne ñii ay responsable lañ ci famille ku jigéen ki ak ay responsable ci famille ku góor ki boroom xam-xam yi ci koñ bi wala ci dëkk bi wala imaam yi ñu woo leen ñu ñëw teew ca jàkka ja ñu ne leen kët soxna si dañ ko mayoon seen mbokk mi léegi problème sàngam moo tax moom mënatula sëy ak moom mooy lan mooy nanguwute julli su fekkee seen doom nangu naa julli mu continuer dellu ca loolu su loolu nanguwul nag nun ñii ko may woon noo koy tas su fekkee nag mayu ko baat can giñ ko joxoon mi ngi nii ñu jox leen ko yéeni bokkam sëy bi tas nañ ko su boobaa suñ ko tasee sëy ba day tas ndax ñoom ñoo dajawoon fas ko suñ daje tas ko day tas boobaa kon sëy mënta nekk ab kaso boo xam ne ku ci xas dugg duutoo am foo génn du ku góor ki du ku jigéen ki ku bëgg a génn ku ne am na fooy jaar ba génn sharia prévoir na ko benn mu may ko baat bu ko mayut baat mu jëfandikoo xolu woo imaam yàgg attekat yi ñu ñëw atte leen delloo ko xaalisam mu nangu ko wala ñu jox koy bokkam su ko nanguwut sax bu leen neexee ñu tas sëy ba mu jeex ndaw sa dem iddawu ji bu jeexee mu dem sëy naam asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah asaabakum allah fadilati cheikh amiin
dañoo amoon benn laaj bu jëm ci wàllu julli naafila yi ñuy def ci weeru koor ndax mën nañ jiital xale wala bu ñu amee mag loolu mooy gën beneen bi dañuy bala sàkku- ngaa jàll on kay suñ amee mag moo xam ne mën naa jàng kay la chaque ne moom moo gën waaye su fekkee ne xale ba daa dàq jàng mag ña te matagul mu kàllaf loolu mën naa ñàkk mën naa nekk ndax Omar ibn Salama ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale la woon bu ndaw boo xam ne ñii dañ ne fukki at ak ñaar la am am ñu ne sax juróom-ñetti at la am waaye moo doon jiite naafila ci aw nitam ba yëfi gone sax di ko dal ba mbubb ya muy sol xaw a rafle ba léeg-léeg mu sëgg ya warta feeñ di feeñ ci moom ba ñenn ci waa koñ bi ñu naan wax leen seen doom ji waaye muy suturaal awraam si ci ci biir julli gi ne mujj nag ñu xottil ko mbubb nag mu kontaan ca lool continuer di julli kon loola lo doonut loo xam ne day yàq dara ci julli gi noonu la ko sharia àtte waaye su ñu amee mag nag moo xam ne moo dàq jàng gone kon duñ jël gone nag di ko jiital su boobaa
waaw beneen bi weeru koor bu ñëwee jullit yi dañuy jubu jàkk yi ñu bëggoon ay tawjihaat ci wàllu aadab ni ñu nekkee ci jàkk ndax danga mën nga am nga sañ-sañ nelaw wala waxtaan yenn waxtaan ci weeru koor yu demee noonu
ala kulli xaal jàkka néegub yàlla la ku nekk ci néegub yàlla nag nga xool ban yëg-yëg nga war a yëg mooy ormaal jàkka ji Euh, lépp loo xam ne luy nuru xeeti mbóorantal wala caaxaan wala po foofu kooko jàkkaam du palaasam doonut béréb bu ñuy yëkkatee ay kàddu ci kaw di werante ci waxtaanu àdduna wala ngay wax waxi caaxaan Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu benn bis dafa seen ñaari nit ñu yëkkati seeni kàddu ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne demal wool ma leen ñu woo mu ñëw mu ne yéenay ñan ñu ne nan de béréb sàngam lañ jóge muy fu sori mu ne leen law kuntuma min ahli lmadinati la awjactukuma darban su fekkoon ne ci waa madina ngeen bokk yéen tey kon danaa leen duma waaye nag ginnaaw fu sori lañ jóge xamuñu lu bare bari ci atte yi waaye mu ne leen fii kenn du fi yëkkati eh, di su fi yëkkati baat daa leen di tere lu mel noonu kon jàkka doonut foo xam ne day mel ne marché loolu euh, mat nay dégg bu baax a baax ndax léeg-léeg mu gaar surtout soxna yi léeg-léeg ñu julli ba sëlmal rek nga daal di dégg coow loo xam ne day xaw a mel ne ku nekk ca marché ba loolu dañ koy faral di eh, bàyyiloo nit ñi ak di ko wattandiku ndax néegu sunu borom tabaraka wa taala la amma nelaw nag su jullit bi toogoon ci jàkka ji nelaw not ko mu nelaw fa it loola dara nekku ci su ñàkkoon fu mu fanaan sax ñi jox ko ruq ci jàkka ji mu di fa fanaan di fa nelaw it loola dara nekku ci ndax am abdullah ibn omar ibn alxataab radiallahu taala anhu seen kër ba mu xatee dañ ko bàyyi woon mu ñëw ci jàkka ji di fa tëdd di fa nelaw ci jàkka yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana fa fanaan kon loola moom dara nekku ci waaye day fekk nag mu doon loo xam ne sabab moo koy waral wala lu mënta ñàkk ala kulli xaal néeg la boo xam ne néegu sunu borom tabaraka wa taala doy na rek jullit bi xam loola ndax mënees naa woor weeru rajab ba mu mat sëkk ah ok dara nekku ci bu wooroon weeru rajab ba mu ba mu jeexit lu baax rek la def waaye nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam day musta woor aw weer ba mu mat wudul ramadaan te nag xayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li gën ci njàngale yi mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bañ koo weer ba woor ba mu mat moo gën waaye su ko defoon it nag woor na am na koor
salaamaaleykum wa rahmatullah fa jazakumullah xayran ya cheikh yàlla na leen yàlla fay may leen gudd fan ak weer cheikh dañoo am ñaari question yu bàyyeekoo ci internet bi ndax dars baa ngi dem daw en direct première bi nee na ndax jàng alquran sa xel luy atteem jàng alquran si sa xel luy atteem
ala kulli xaal jàng alquranul karim bu ñu waxee qiraa làmmiñ moo koy def làmmiñ moo koy def su fekkee mën na caa yëkkati kàddoom mu ànd ak làmmiñ wa loola moo cay cosaan waaye su fekkee daa nekk foo xam ne su yëkkatee kàddoom am nay nit ñu muy jaxase su boobaa mën na koy wax ci làmmiñam ca suuf waaye nag na làmmiñ wa di tudd xaraf ya su fekkee nag daa doon koo xam ne moom lim jublu mooy dafa mokkal rek bëgg a romb noonu alxuraan ji di ko xool xool bu gaaw a gaaw muy xoola comme xelam di ubbi di dem rek lu mel noonu am na ñu koy def ala kulli xaal waaye doonut la gën mëni su la wax nag ne baaxut ndax alxuraan moom téere la boo xam ne xool ko sax borom bi tabaraka wa taala mën na cee bindal nit ku tuyaaba comme ni ko borom xam-xam yi di waxe
jazakumullah xayran ñaareel nee na ndax ku woor weer koor nga woor ba pare parfumé ndax loolu mën naa yàq sa koor.
woor ba pare.
parfum def parfum.
déedéet maanaam parfum du yàq koor su fekkee ne parfum rek la mu xeeñ ko loolu du yàq koor cuuraay du yàq koor yu bare bari nit ñi dañoo jàpp ne day yàq koor du fekk du yàq koor. kii dafay laaj soxna si nga xam ne weeru koor da ko wa wala. koor da ko war fayu ko ba beneen ramadaan dugg siwaat ala kulli xaal bor baa nga fa bor baa nga fa lu mu ca leb rek na ko kalkin boole waale ko ca bu ramadaan jàllee mu xam ne looloo ngi ci baatam mu jéem koo fay woor gannaaw nisfu shaabaan loola dagan na naam salaam wa rahmatullah microphone bi de daa mel ni côté yi rek la nekk fële am nañu ñuy yëngu de.
salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
salaam wa rahmatullah.
xam naa laaj bi day xaw a dugg ci laaj boobu soxna soo xamante ni kooru daaw daf ko fekkoon mu nekk diggante ba mu am doom di nàmpal ba fii ñu toll nii mi ngi nàmpal te fayagul kooru daawam kooku nan la war a def.
ala kulli xaal na na na woor weer wi teew. ndax ki nga xam ne moom la doon nàmpal daaw ba ren moom kooku war naa mën a sukkandiku nag ci boppam léegi su ko defee mu mu woor weer wi teew la mu ci mën a woor bor ba nekk fa su fekkee lottul ci fay ko mu fay ko su demee ba lott ci fay ko nag ndax bari na ci diggante ëmb ak nàmpal ci lay nekk ba weeri koor ya bari ci boppam su boobaa na lele mooy la ca sës su amul lum lele su boobaa da koy wàcc.
asalaamaaleykum cheikh bi dañ doon laaj jigéen boo xam ne ni bëccëgu koor dafa dem ci gynécologue mu xool ko ndax day yàq kooram
déedéet loolu du yàq koor ndax amul benn sabab boo xam ne bu bi tax kooram yàqu ci la bokk ci lay jógee ndax amut lenn lu génne ci moom loo xam ne xeeti bànneex la ñaareel bi su fekkee ne sampaluñ ko ay butéel yoo xam ne dafa toog palaasu lekk ak naan wala yu mel noonu kooram du yàqu bu dee wisit rek la moom loolu yàqul koor.
macha allah beneen laaj bi mooy jigéen boo xam ne day fay muy fay euh, lu mu faatoon ndax bu ko borom këram soxlaa mën na bañ.
su fekkee ne farata la déedéet su dee farata lay fay kooku borom këram soxla ko du tax mu dagg ko waaye nag niñ ko waxee sànq su fekkee koorug naafila la charte ba mooy na tàggu borom këram ba mu ne ko ay
salaamaaleykum yaa oustaz man dafa am benn laaj bu may laaj muy ki doon julli fàtte yéene ba julleem jeex te yéenewul julli gi ndax kooku julli gi nan la koy réparé
loo tuddee yéene julli loo tuddee yéene julli yéene julli boo eh, boo jógee ba- ba taxawalee boo tax li xam ba nga baynal baynal baynal alif wal raay Hmm.
allahu akbar bi yéene bi nga dugal foofu fas naa yéene julli waaw faratay maanaam tisbaar wax ko daal wala faratay takkusaan waaw
yéene boroom xam-xam yi dañoo wax ne ci xol la nekk ci xol nekkul ci làmmiñ dem nañ ba ne sax tudd yéene ji ci làmmiñ wi biddaa la kon euh, kii jàppi jóg dem jël ak satala toog ca béréb ba ne bismillah tàmbali di jàpp loola mooy yéene ja ki dugg ci biir julli gi taxaw jàpp ba sell jublu qibla yëkkati ñaari loxoom kabbar kabbaru armal ne allahu akbar kooka euh, yéene na julli yéene ji ci biir xol bi lay nekk mooy nit ki lii mu dëgmal mu nekk ci xolam mu fas ko yéene def loolu la ñuy tuddee yéene waaye taxaw ba noppi nag naan fas na maa yéene julli nangam loola koy waxal booba bu dee sa boroom la tabaraka wa taala moom xam na li ngay def moo tax qasd ci boppam euh, mooy yéene maanaam li nga jublu fas ko mu nekk ci sa xol loola la ñuy tudde yéene ci sharia waaye lu ñuy wax foofu amul loolu moo tax ma laaj la loo jublu ci yéene wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain ci jataay bi ñëw insha allah danañ àggale buntu li'tikaaf su ko defee laaj yi dana gën a mën a yaatu ci buntu koor ak lu ci aju